ñi nga xamante dañu am ci côté urologie loolu nag boo leen ko déggee muy ay malformation yi nga xamantene day am ci seen ay sexe surtout nag ñi nga xamante ne seen sexe dafa dëng ñii dafa jàdd ñii dafa tuuti ñii dafa ndaw te loolu nag dañ ci am pexe ndax muy sunu gamme de produit bii moom dafay faj lépp lu ni mel rawatina nag ñi xamante sax ñoo ci gën a bari te gën ci am problème mooy ñi xamantene dañu am faiblesse sexuelle impuissance sexuelle ak éjaculation précoce te pomade bi dafay def agrandissement de la taille du pénis da kay yok ci yatuway bi ci goudayam ci reyayam ak degeray bi manam koko utiliser pour 45 jours di nga 18 cm de longueur soko utiliser pour 2 mois di nga 21 cm de longueur ak 6 cm de largeur en érection te ñi ci gëna bari ci dañ doon di def ay masturbation ak genre yu demee noonu te loolu dafay travailler neer ak veine yi ba sexe bi dafay am rétrécissement wala dafay am dem ba am ay infection ñi nga xamante ni dafay tere nit di mën a sëy normal te pommade bi da koy faj pommade bi nag ak dafa ànd ak ay garab garab yi nag la àndal lépp luy jafe-jafe wala lepp luy gàllankoor bi xamante nit mi ngi koy am ci sexe sam dafa don def masturbation wala sexe bi dafa ndaw dafa jadd dafa am gàllankoor dafa deung wala du mën juk normalement wala dafa mel lu plié wu loolu yëpp dañ koy faral di gis ci góor ñi te dañu am jafe-jafe boobu. képp ku ci bëgg ay information mën nga ñëw fii ci Guédiawaye arrêt du Balès kër Serigne Lamine Bara Fall wala nga wooñu ci 77 169 45 45 wala sax nga dugg ci suñu site internet www.laminebarafall.com ñu ngi santaat bu baax askan bi sant Sénégal di wax jërëjëfe Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp jërë ngeen jëf merci beaucoup.